salaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen nuyu leen ziar leen fàttali ngeen seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de l'argent YouTube naka la ñuy Lo ñu leen koy defal la en ci li nga xamante ni mooy calendrier paiement AdSense waaw parce que ñu bëri dañ ma siy laaj ay question ma ne nag def ci vidéo pour ñeneen ñi nga tam peut être laaj ñu ko te mu xaw leen euh, nekk seen problème ñu mën koo xam nu muy fonctionner waaw parce que AdSense euh, soo gagner xaalis YouTube. Euh, benn yoon ci weer bi lañ lay envoyé sa paiement euh, mu ñëw AdSense bu ñëwee AdSense dina fa toog ci ci weer bi nga xam ne lay ñëw balaa weer bi di dee ci lañ la koy fay noonu lay doxee léegi nag loolu lu muy fonctionné calendrier de paiement AdSense moo nekk nii léegi par exemple weer bi bu fekkoon dafa nekk mois de août bii passé mois de août bi passé la ñoo ngi septembre ñoo ngi tey mooy le trois septembre léegi nga bëggoon xam sa paiement septembre bi nu muy demee léegi mois d'août commencé nañ première août exemple ba le 31 août waaw parce que weeru août bi 31 la heureusement mu tombé mu nekk 31 calendrier bi premier août ba 31 août léegi bu ñu demee ba dugg août jeex na ñoo ngi septembre yow gisagoo sa benn paiement te août jeex na yaa ngi septembre parce que le 11 YouTube ji nga ay temps AdSense lu ñu defoon. dañoo defoon sa paiement yaa ngi koy jot le 3 bu njëkk ba loolu la woon mais léegi dañ koo changé dindiwul nag information ci site internet bi mais changé nañ ko le 3 bii valable tul léegi paiement yi moo ngi jógee YouTube di ñëw AdSense chaque le 11 le onze bu jot YouTube dina jëlee xaalis bi biir YouTube indil la ko. AdSense du tere nag dina continuer di figurer foofu ca analytics ca YouTube waaye nag fay nañ la ko dañ ko fa continuer di figurer rek pour nga xam ñaata nga gañeek ak li nga gañe nga koy xam mais nekkul xaalis boo fa gis rek fayaguñ ko déedéet liñ la fa fay ak luñ la fayagul yépp mun nga koy gis ci YouTube mais AdSense bi chaque le 11 lay ñëw ñu verser la ko ci AdSense suñ la ko verser le 11 ci AdSense day toog ci AdSense bu matul 70 euros daf fiy toog ba beneen weer ñëw. ñu complété parce que ñoom duñu la transféré moo xam Western Union moo xam par banque moo xam par chèque duñu la envoyé xaalis boo xam ni matul 70 euros il faut mu mat 70 euros jëm kaw buñ la ko envoyé la 11 mu nekk 50 euros weer bi nga xamante ne envoyé nañ ko muy septembre bii ñu nekk le 11 septembre bu ñu la envoyé 50 euros fekk sa compte dara newu fi woon 50 euros bi rek compte nga am doo ko encaissé ci weeru septembre bi il faut nga xaar octobre. ba nga jot paiement septembre su ëppee 70 euros ñu soog la ko verser ci mois octobre bi léegi boo jotee la onze te yaa ngi jot par exemple 71 euros le 11 te sa amuloon benn xaalis nga jot 71 euros le 11 septembre bi ñu fay la xaalisu août bi passé ñu fay la ko la 11 septembre mu mat onze euros léegi su ñëwee ba la diggante la vingt le 21 bi lañ la koy envoyé transfert suñ la ko envoyé transfert balaa fin du mois muy le 30 bi di nga jot sa xaalis waaw. moo bu dee Western Union la bu ñu la ko envoyé moom ñaari fan lay tardé parce que bu ñu la ko envoyé benn fan lay tardé la waa Western Union jot ko euh, procédé ko defal la lien euh, paiement bi nga cliqué ko dem récupérer sa xaalis moo gën a gaaw mais bu dee transfert par banque bu ñu ko préparé le vingt envoyé la ko le 21 diggante le 21 fii jour bu ne mën nga ko fee fayeeku ba le 30 voilà boo toogee nag ba weer bi ba passé weer bi te paiement bi gisoo ko mu dugg sa banque ñëwal ci AdSense nga connecté wu nga xool ndax daa am problème soo amee problème dinañ la defal ne la paiement bi daa am problème ak sa banque demal nga seeti sa banque ndax paiement bi jàllul voilà noonu lay demee su dee gis nga ci AdSense ñu defal bi jàll na envoyé nañ ko te gis nga ko sa compte banque demal nga xam ne retard bi mi ngi am ci sa compte banque mais ñoom fay paiement bi jàll na ci ñoom noonu lay demee toujours daal balaa weer bi di dee paiement bi nga am ci weer bi te mu ëpp 70 euros ñu envoyé la ko balaa weer bi dee war na dugg ci sa compte banque loolu yaakaar naa leer na noonu lay paiement bi du doxee boo gisee ñu ngi la defal fii information yi ñu def fii ñoo ngi def fii ñu nga la 3 lañ lay envoyé parce que le 3 la woon waaye léegi le 11 la dañ koo defagul mise à jour chaque le 11 dinañ la envoyé xaalis bi ci sa AdSense gis nga gis nga diggante le vingt ay jàpp le 21 yooyu lañ la koy procédé pour defal la transfert bi suñ la defalee transfert bi diggante la vingt 21 ba vingt 26 li jëpp mën nga fee jot sa xaalis mais mën na tardé ba fin du mois voilà. parce que li sëpp dina tardé sept jours ouvrable moom lañ la defal fii ci fin bi ñu defal la sept jours ouvré lay lay lay lay war nga ci mën jot sa xaalis waaye nag dafa am lu ñuy sóoraale ñoom dañuy sóoraale su fekkee dafa tombe ak weekend wala mu tombe ak férier date bu dele boobu mën na gudd moo tax toujours muy dem ba fin du mu mën dem ba le 30 moo ngi nii dañ la fi defal fii si le 21 tombe un weekend ou un jour férié les paiements sont émis le premier jour ouvrez après le 21 du mois en question maanaam tey le 21 bi suñ la ko bëggoon fay le 21 mu tombeek samedi le deux di dimanche le 23 lañ lay soog envoyé xaalis bi su doon dafa nekk par exemple le 21 tombeek férié mu tombeek vendredi ba pare tombeek férié kon du néew duñ la ko fay le 21 parce que férier la. samedi duñ la ko fay duñ liggéey samedi dimanche duñ la ko fay duñ liggéey dimanche lundi ba lañ la koy fay le 21 ko du mën a nekk le 22 du nekk le 23 du nekk la koy envoyé suñ ko envoyé le 24 xam nga doo ko mën a jot le 25 le 26 il faut dina dem ba ay côté le 30 moo tax toujours ñu lay wax mën naa dem ba le 30 parce que ñoom dañ ciy sóoraale jour férié yi ak week-end yi su si duggee day guddal affaire bi ndax jour yooyu ñoom duñ ko liggéey duñ ci envoyé paiement te mën le 21 bi mën na tombe ak férié mën na tombe ak waaw ah, loolu lañu sóoraale pour daal képp ko am ne sa paiement am na ay retard ak yooyu nga xamee ko noonu lépp loo ci xam dam da ci jaaxal ci retard paiement da ngay dem ci AdSense nga connecté wu après nga xool ko euh, ba xam euh, paiement bi jàll na wala jàllul waaw bu dee Western Union waxoon nañ leen nu ngeen koy retiré bu dee transfert par banque moom noonu la bu ñu la ko envoyé c'est sa compte après lay dem dugg nga gis ko soo fekkee tongalu ba weer bi dee paiement bi ñu la envoyé euh, le 11 mu ñëw ci sa AdSense ëpp na 70 euros. wala fekk na fa xaalis lépp bu dajaloowee ëpp na soixante-dix euros le 21 envoyé nañ la xaalis bi toog nga ba la 30 gisoo xaalis bi sa banque da ngay connecté wu ci access nga xool soo amee problème ñoom dañ la ko signalé ne la sa banque kat sa niveau banque la am problème bu fekkee da nga juum la jox dafa am problème parce que banques yi des fois dafay nekk ay banques intermédiaires yu bëri day dox seen digganteeg banques yi def transfert yi léegi-léegi duñ ko def transfert mu ñëw direct affaire banques yi dafa compliqué léegi moo tax léegi-léegi loolu lay tax léegi paiement yi des am ay jafe-jafe ay retard yooyu waaye ñoom bu dee daa am problème boo xam ne rek ci affaire banque yi la dañ la koy signaler ne la ah sa banque kat demal nga xool euh, information yi ñuy jox dafa mel dafa am problème parce que bu normaloon paiement électronique automatique day jàll sans benn jafe-jafe loolu j'espère que leer na mooy euh, leeral bu ma bëggoon indi si calendrier paiement AdSense yi kenn ku nekk ngay xam ni nekkul AdSense li nga fa gagné ci weer bi le premier rek da nga war a gis ñu envoyé la ko ci sa compte AdSense li nga gagné YouTube wala ñu envoyé la ko ba pare nga dem YouTube continuer connecté wu fa gis fa xaalis defe ne xaalis boobu ba léegi mooy xaalis bu ñu la war a fay déedéet même bu ñu la fayee xaalis bi loolu dafay figurer rek pour nga xam ñaata nga gañ information lay daal di nekk mais nekkatul xaalis bu disponible xaalis bi nga disponible boo bëggee xam ñaata nga xam ni moom nga dina ñëw dem ci euh, euh, euh, YouTube bi wan la weer bu nekk boo bëggee xam weer bi exact lan nga ci gañe nan nga koy xoole moom lañ leen di dem ci wan ci YouTube balaa vidéo bi di voilà léegi ñoo ngi ci euh, benn canal YouTube léegi boo xoolee euh, chaque mois boo chaque jour sax boo duggee ci sa canal da ngay gis ñu defal la fii vingt huit derniers jours léegi nag vingt huit derniers jour war ngaa xam ni euh, c'est simple bu fekkee da ngaa nekk la quinze ci benn weer ñun la vingt huit derniers jour kon war ngaa xam ni dañoo jël fii quinze jours jël fee quatorze jour fii quatorze jour exemple boole ko muy vingt huit vingt huit jours kon liñ la woon fii ci pay paiement concerné wul weer bi nga nekk waaye jël na fukki fan ak euh, ñeent ci weer bee passé ak fukki fan ak ñeent ci weer bi nga toll muy bu dee la 14 nga nekk kon jël na 14 jours ci bee passé 14 jours kon loolu estimation la boo xam ne kenn du ci basé wu toujours ma koy wax boo duggee par défaut AdSense lii ñu la euh, analytics si YouTube lii ñu la fi defal bu ci basé par défaut soo bëggee xam lu réel dangay ñëw fii voilà fii boo ñëwee fii fii mu la defal 28 derniers jours ngay changé par exemple compte bi biñ ko monétiser léegi je crois war na mat ay euh, une semaine xaw ma à peu près léegi xoola nga ñëw fii boo ñëwee fii ci calendrier bi ngay cliquer soo cliquer léegi da ngay choisir ban mois nga bëgg a gis résultat am par exemple tey su fekkee 2020 bi yëpp nga xam nga bëgg a xam ñaata nga gañ si 2020 bi yëpp fii ngay cliquer 2019 bi passé bu la fekkoon ngay monétiser nga bëggoon xam 2019 lan nga ci gañ fii gis nga léegi mu defal la fii toujours ñetti weer yu mujj yi mu defal la ñu nga juillet août septembre bu ñu demoon octobre léegi fii day nekk août euh, août août septembre octobre noonu lay nekk toujours ñetti weer yu mujj yi la lay affiché fii parce que day jàpp ci ngay am soxla yeneen yi sori yi doo am soxla léegi te dama bëgg a xam léegi mois de août bi ñaata laa ci gagné parce que mois de août bi moo passé ba ma nekk septembre bëgg naa xam exact ñaata laa gagné ci mois de août bi ñu war ma koo versé ci li nga xam mooy fii ngay ñëw nga cliqué mois août. soo cliquer mois août bi exactement mu génnal la information yi léegi dootul nekk dernier vingt huit jours mais day nekk mois août lay nekk août bi kase kase kase premier au 31 août gis nga fii canal baa ngi ci am euh, quinze mille vues la ci am moo ngi ci am mille trois cent heures de moo ngi ci am trois cent abonnés moo ngi ci am dix la ci gagné ci mois de août bi kese waaw muy semaine bu mujj bi parce que canal bi bi ñu ko monétiser euh, une semaine lay war nii mooy ni nga xam ne noonu ngay xoole euh, sa euh, information lan nga gañe ci YouTube mais doo ñëw rek dugg mu defal la par défaut rek nga daal di xool daal di defe ne loolu nga am te daf la génneel des fois bu fekkee da nga nekk ci digg weer daf la génneel weer bii ak weer bële passé te loolu estimation la boo ci basé woo da ngay def erreur nii mooy ni nga xam noon la ñuy xoole li nga gañe ci benn weer bu précis ci lii nga xam ne mooy euh, analytics ci biir ci biir YouTube léegi bu ñu demee AdSense analytics bi am na fan yi ñu bëri ñu si jot ay message ma profité ci vidéo bi leeralaale ko ñu bëri ñu jot message u analytics mu leen di xaw a jaaxal ci seen euh, AdSense loolu ma leen di expliquer ma leen di wax rek ni du dara message bi ma ñëwee fii léegi connecté maa ko supprimer c'est que euh, boo doon dugg sa YouTube xam nga lii ngay gis mais boo cliquer flèche bi bu ndaw bi toujours nekk ci suuf daf la doon indil ay information analytics ñu xaar mu ubbeeku tuuti gis nga information analytique la nu ubbil fii da leen a defal vie nga am fële ci ci YouTube defal la blog d'annonce yi bu dee da ngay da ngay monétiser ay site internet tam dañ lay defal information yi gis nga léegi boo xoolee benn information ñëw fi ji nga lépp lépp lépp la ko dindi na ko voilà lii rek message boobu ngeen di gis fan yi démb ba léegi YouTube di ko AdSense di ko di ko bindal ñëpp ci seen compte bi loolu la information yi doon am fii. nga xam ne day amaale en même temps fii nga xam ne mooy analytics la la bëgg wax léegi information boo bëgg a xam ci sa monétisation ci analytics bi ngay ñëw dugg bu dee couverture nga ñëw cliquer fii engagement audience revenu wala nga cliquer mode avancé bi mu indil la ay euh, information yu gën a détaillé yu gën a am précision loolu la loolu moo tax nag ngeen di gis message bu rouge bi loolu kese la du leneen voilà ñu bëri dañ koy defe ne seen adset daa am wala dara la du loolu dañ lay wax rek ne la information yi léegi dañ ko doon génnee fii di ko génnee YouTube léegi génneetuñ ko fii YouTube donc lañ koy yemale voilà léegi ce qui fait fii boo duggee ni mu mel nii jeex na boo cliqueetee fii doo fi gis benn information loolu nag mooy message bi nga xam ni fan yi euh, AdSense doon na ko bind di ko yëgalaate kon vidéo tey bi bii nii fii lañ koy yemale euh, di la jox daje ba vidéo bii di ñëw di la wax ne vidéo bii di ñëw dinañ si leeral li nga xamante ni mooy euh, paiement par waaw loolu dinaa ci def ay éclaircissement pour ñu bëri euh, xam ko parce que ñu bëri dañuy des fois defe ne paiement par chèque dafa gën a jàppandi parce que bañ leen leen ne AdSense bi dañ koy waaj tëj xam nga AdSense ñu ko am euh, kii euh, muy paiement par chèque parce que ñu si bëri dafa xaw dafa leen di xaw a jaaxal tuuti ñu am ñoo xam ne sax dañuy choisir mode de paiement par chèque te waxoon naa choisir leen mode de paiement bu la neex waaye chèque moom bu mu si bokk bi gën mooy transfert banque bi si topp mooy Western Union chèque moo mujjee waaye bu ko kenn jël léegi na am na benn benn yu ma si doon laaj ma nag dinaa si benn waaye mu ne ma ah yow option paiement yi kat gis naa nga def yëpp vidéo mais chèque bi gisuma nga def ko ma ma expliqué ko ba pare comme chèque bi euh, ñàkk am njëriñam ma ne ko nag mais dinaa def vidéo peut na ñoo xam ne xëy na mi ngi seen xel wala sax choisir nañ ko noonu noppi te xamuñu si dara léegi dinaa si def vidéo bii di ñëw incha allah dinaa ko def ci paiement par chèque niñ koy defee boo koy boo koy defee option ni nga koy enregistrer adresse bi ba pare jox gën ci joxe ay détails nag comme yi ma ci wax nii pour mu leer mu nekk vidéo boppam boo xam ni ku ko soxla boo recherché di nga ko mën a gis euh, facilement kon ñu ngi leen sant leen gërëm seetaan bi nga nu seetaan di leen jox daje ba vidéo bi ñëw incha allah rabbi jërë ngeen jëf. G bi soo ko cliqué di nga abonné ci canal bi boo ko cliqué abonné ci canal ba pare vidéo bii soo ko di nga gis ay tips ak ay secret yoo xam ni di lañ la jëriñ ci sa yuy YouTube kon jërëjëf.